voilà kon nag mbo mbokk yi euh, suivre e-, Equivox euh, TV tey ñu ngi fi taxaw ak euh, le le grand manager muy <laughs> Bourkhane Wade yore fi ay mbër yu bëree bëri bëri ku si mel ni bu Boy Niang 2 waaye tey nag li li ko fi taxa taxa teew du du Boy Niang 2 waaye bay bàyyi moo ñëwoon mi ngi mi nga xam ne moom mooy bëri ak ki nga xam ne mooy fourrière bi nekk grand mbooloo moom moo ko fi taxa teew ndax mën nañu am confirmation ne combat taxaw na Père Bourkhane onze bi kalimat lay taamaati min sharri maa xalaqa ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci Baay Laay ak Seydi ñu ngi sant ñëpp di nuyu personnel u Equivox TV yëpp alors euh, di wax ni combat bi moom taxaw na parce que euh, ci taxaw boo xam ni vraiment yomb na lool amul discussion amul dara dañoo dajeeg promoteur yoo xam ni am nañu niveau nekk nañu aussi ñoo xam ne ils sont crédibles ba nga xam ne amul dara lu tàddal suñu sunu discussion tey jii lépp loo xam ne seq nañ ko ak ñoom def nañ ko ak ñun di xaar nag ñu am date pour mun a xam ban jour la ñuy kii te yaakaar naa du yàgg. kon daal mën nañu wax ne li ngeen euh, li euh, waa Vox Arena euh, di di di diglante woon ak yéen lépp daal kii na quoi yemb na tey ensemble bi ñoo ak yow. waaw lépp yemb na parce que xam nga généralement dafa am ñoo xam ni. Euh, dañu crédible ci lépp nag waaw parce que xam nga administrativement dara tardewul financièrement dara tardewul kon moo tax lépp li nga xam ne diggante woon nañ ko ak ñoom euh, ñoom def nañ ko léegi li des nag mu ngi ci biir contrat bi ñu xool kenn ku cinq li nga xam ni loolu la yoon sant nga def ko te yàlla na nekk loo xam ne mu mel comme ni nga xam ne noon lañ ko démarré may interpeller amateur bu mag bi yàgg ci làmb xam làmb journée boo xam ne père euh, Tyson 2 ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak Franc de dañ siy bëre Garga 2 ak Mama Mama Lamine ki kii di euh, Noiro ak ak ak musique ki ki nga xam ne mooy caatu caatu ngewel ak ak alliance biram ba Baye Mandione 2 ak ak Fourier boobu journée noo ko gisee père. waaw dañuy profité ci occasion pour ñaanal euh, Equivox. ak euh, Vox Arena ñaanal leen parce que journée yu mel noonu euh, kenn rek euh, la ñu gisoon mu def ko fi daaw jéeg mooy mooy Leewtoo tey jii Vox Arena def ko leen ñoo leen ci ñaanal réussite parce que ñoom seen réussite mooy réussite làmb parce que toog benn journée boo xam ne da ngay dajale xale yu mel ni xale yooyu nga lim muy ñoom Tyson 2 ak ñoom Garga 2 booleeg ñoom Mama Lamine ak. ak euh, Maama Lamine ak Garga 2 Tyson 2 ak euh, ak Franc euh, journée boobu journée nga boole Baye Mandione junior ak ak Fourière boole Moustique ak ak Noiro ak am des na beneen combat alliance biram ak caadu ngéwél loolu làmb bu ñu sañoon promoteur bu nekk day def programme bu toll noonu waaw xam nga orna ordinateur moom actuellement ku ko bëriloo rek def nga lu rëy parce que dafa am mbooloo mu ko toppoon ci simple bi di xool lan la war a def si ci ci arène bi kon nag xam naa ne journée boobu xëy na sax du ñàkk Vox Arena dugal ko ci biir de toute façon daal ñun dañuy ñaanal Vox Arena réussir journée am réussir tam yeneen journée yi nga xam ne moom mi ngi koy dëgmal parce que ay xale yoo xam ni seen xalaat yëpp mooy la promotion de la lutte sénégalaise seen xalaat mooy euh, def émergence si si si si si si làmb ñooñu bu ñuy ñëw dañ leen di accueillir à bras ouverts wane ni ñii kat ay xale lañ yoo xam ne ñoom xalaatuñu dugg gaal gi. ay xale lañ yoo xam ne ñu ngi fexe aussi ñu doon xalaat sax ci dugg gaal gi ñëpp ñu fexe leen téye leen ci biir dëkk bi pour que ñu am lu ñu mën a jàpp ba mën a toog seen biir réew te làmb nag facteur la boo xam ni facteur de développement la et puis tax na lu bari loo xam ne mënoon na am ci réew mi amatu fi. kon ñu bari nag ministère yu bari dañu war a appuyer làmb. Equivox euh, TV ñoo ngi taxaw fii tey ak ki nga xam ne moom mooy manageru euh, <coughs> kii kii kii di. kii Noiro <laughs> Noiro mi ngi bi bi nga xam ne donc combat am ñu ngi ko Vox Arena moo ko taxawal tey de mu mu war a bëri ak ak ki ki nga xam ne moom mu musique nekk ca euh, Thiaroye euh, sur Mer est-ce que mën nañu mën nañu am confirmation ne confirme euh, combat bi taxaw na est-ce que li Vox Arena di digle woon ak ak yéen am na. bon voilà asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu waa Vox Arena comme ni ñu ko xamee. mais je tenais d'abord à faire une euh, confirmation ci ou bien une information ci ni mu demee nii moi je ne suis pas le manager de euh, Noiro mais je suis plutôt le président de l'école de lutte Doudou Bakassar bi nga xam ne fa la Noiro nekk et comme le CNG avait demandé à ce que les présidents paraphent les contrats entre lutteurs entre euh, promoteurs et et, et les waaw entre entre promoteur et école de lutte waaw waaw euh, j'ai tenu à le faire une fois boog ndax nit ñi nit ñi xam ne loolu tamit on en tient compte néanmoins je suis aussi promoteur je suis aussi manager waaw ma ne kon mais mais tamit euh, dinaa leen xamal ne leen tamit manager la manager la mais manager ki war a signé combat wu école de lutte bu Kassar yi comme man président la maa ngi koy bàyyi Modou juuf dafa jàpp na moo tax ñëwul ma jël place am tey dal di tenir son rôle mais defe naa ne yëpp benn la daal di leen xamal aussi ne leen euh, kon boog fi mu nekk nii euh, en présence euh, de certains témoins jot naa avance su noiro bi kon boog ci ci gàttal combat bi taxaw na combat bi taxaw na parce que jot nañ loo xam ne lii mooy war a confirmer ne combat bi taxaw na te am na lu ma signé j'ai signé naa benn contrat de lutte ak waa Equivox. waaw euh, damay damay bañ jiitu leen euh, wala làmmeñ daggal làmmeñ jop leen parce que aussi ni ñu dugg see dugg si nañu ak doole te dëgg-dëgg yi combat yi ñu taxaw yëpp. ay combat yoo xam ni wax dëgg yàlla ku ko taxawal taxawal nga combat ku ko def nag ba mu jàll xamal ne dimbali nga làmb dimbali nga mbër yi dimbali nga CNG aussi euh, je crois que c'est de c'est des ay combat de haute facture la yoo xam ni bu ci nekk grand combat la xaw ma naka lay arrangé wu pour def ce gala mais dëgg dëgg dëgg on n'attendait pas mieux